ak noo koy dajalee ak noo koy ràbbe ba indi saafara su àndul ak lor loolu moo tax ñu tëral li ñuy tudde pacte paix bi mooy paix li Sénégal njëkk a soxla mooy ñu am jàmm nit ñi déggoo nit ñi juboo xol yi ànd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 à 15 ou 20 de Poussard, Bay Dougougé. La situation est Le Sénégal n'a pas expertise. Mais Réumi Doudem est en train de travail. Té kunyou, ci secteur ou pêche, bi, secteur ou agriculture, bi, secteur ou élevage, bi, di nga xamne Sénégal, tout le monde est en train Il y a des la Ablaye wad doon wax nit ñi di ko répéter di ré mais loolu moo war a nekk faut travailler beaucoup travailler toujours travailler encore travailler boo fexee ba jàmm am tege ci dëgg ak yoon compétence am ñu liggéey pour développer à la kulli alin yaakaar dana tàbbi muy espoir ku déglu exposé bii suñu frère Ablaye Ndiaye def tënk ko te ay acteurs bolo jël initiative gëstu bind ñëwuma fi rek pour signer pour bëgg lu leen neex dama njëkk a équipe ay experts ñu toog ak yeen toog ak seeni experts poñ mu nekk ñu càmbar ko ba loola dal xel ma xam lu ñu mëna def la ma soog ne d'accord